mais tey jii dafa mel ne combat bi da koo jël da koo jël aaki moo ko euh, ci wetu Ousmane Sonko muy Aminata Touré. loolu affaire am la xam nga de façon bu bu rendre compte dana rendre compte à sa propre conscience bi ñu fi bu mu nekkee ministre de la justice. Mhm. du comportement bi la amoon. Hmm. man su fais que les nañu jugé. gis nga homme d'état c'est pendant la fonction boo ko nekkee pendant mais aussi après la fonction obligation de réserve bu ñuy wax ci fonctionnaire moom moo yaatu ci homme d'état te la jàpp homme d'état def war a maandu bu mu nekkee ci état bi mais bu mu génnee ci état bi war na continuer maandu. loo bëgg wax comportement bi mu am ni dafay gàcceel ministre de la justice damay jàpp ni damay jàpp ni damay jàpp ni am man bëgguma qualifier personnellement damay jàpp ni damay jàpp ni Amadou li yëpp ngay gis ni cinéma c'est-à-dire que moi je suis pas un comédien pour mm-hmm. faire de la comédie xam nga wàcc nga ñu lay photo aéroport nga wàcc après su terminé nga dafay déclaration alors que waa ji citoyen sénégalais la yàgg na dem Ziguinchor yàgg na bu ko neexoon suba mu ñëwaat Ndakaaru kenn

parce que ma akulaay talaala. mais li ma bëgg damay jàpp ni oui oui. li may jàpp sax parce que Ousmane Sonko laa gën a déglu ci mbir moom. Ousmane Sonko li mu wax na dama jàpp ni am na ay éléments yu sukkandiku pour wane c'est un complot bëgg naa mu prouver. ñenn waa état bi ñoo ci nekk ba mu ne complot d'état Ousmane am na une occasion unique unique. pour montrer ñan ñoo comploté mu prouver ko devant le tribunal à dama jàpp ne ñoom Mimi Touré ak ñeneen ak ñeneen ñi ci bokk di di ci bulu bulu ñoo un procès public. télévisé. waruñu ko woon encouragé ci refus procès public parce que quand citoyen bu nekk buñ la ooyee da ngay wuyu Abdoulaye Wade kan moo ko ëppoon doole kan moo ko ëppoon doole Karim Wade bitim réew la nekkoon bitim réew la nekkoon ñu ko wax déglu nañu fii déposé nañu convocation këram. Mhm. Abdoulaye Wade oo Karim Wade nekkul convocation ngi fii ñibbisil mu ñibbisi. mais loolu c'est un acte de citoyenneté de grandeur et de courage. dafa am ministre lu am solo euh, ci Aminata Touré bu ma comprendre da ne. non dama bañ c'est indigne d'une nga may personnalité man Mimi Touré fi. non c'est juste benn benn mbir moo bëgg mu leer en fait parce que man. li ma jàpp. non mais Mimi Touré c'est juste ancienne ministre dama ne dama ne boo ñuy lecture xool mm-hmm. ancienne ministre de la justice nga xam ni yaa doon jox ndigal procureur. nga xam ni fii muy fonctionner nga mën a yekkati yenn kàddu yi il faut faire attention parce que létat boo nekkee ba servir état à un certain niveau am na loo war a jombal sa.